yonente nee na ku yàlla bëgg dëgg dëgg dëgg dëgg day fexe nga xam diine daldi koy dégg waaye diine ndem ab jullit nga te déggoo ko boo moytu rekk mën ngaa dugg foo xam ne mënoo fa génn ndax du am xelam kese du xelam kese diine ay texte la duut ne da yëg di wax waaye dangay yér di wax lépp ay tegsa la kon nag ku yàlla bëgg yàlla na la déggaloo diine